di leen baal ak aussi di wax ne yàlla nañ ko teewee ay déwéni déwén di ko defee noonu asalaamaaleykum jimaan waaw Gamboul dañ fay ñëw ndax euh, suñu waa ji Cheikh Belaka Diaw xam nga ñu ñëwoon ñu tuddee ko drapeau ñu ñëw gunge si ko pour mu présenter drapeau am looloo su nekkoon suñu teewaay fii tey waaw. waaw comme que moo dañ koy jël rek yàgg na ma laaj suñ borom dogal na combat bi taxaw kon donc ñu xamee ko noonu combat baa ngi noonu di ci ñaan ndam nag. waaw entraînement yi ñoom Kaolack euh, Dakar lañ koy defee ndax euh, fa lañ nekk suñu écurie fa la nekk fa la ñuy préparé combat yi ñu am yëpp kon donc nuñ ko defee woon lañ koy defee di ci woo waa Kaolack gépp di xam ne combat bi combat bu ma fonk la parce que ni mu demee la ko quoi combat bu ma bëgg la tamit. ñu ngi koy waaj ci tous les plans fu mu ko yaakaaree tamit ñu xam nga yaakaaree nañ ko fu ko ëpp waaw am nañ ci yaakaar bu baax a baax daal incha allahu rabi. waaw dama gis ne waa Kaolack bëgg nañ ko quoi gis naa ne waa Kaolack bëgg nañ ko amateur yaa ngi wax Ibou Kayta tamit ñëw xam nga ñooy tëgg ko ñu bëgg koo bëreel tamit. loolu gën a tax ak maam waa Ocass tamit am na si ñoo xamante ñëpp dañoo bëgg combat bi mais incha allah yàlla baax na daal jimaan waaw ñu ngi waaj bu baax a baax jërëjëf ñu kontaan ci bu baax a baax.